waaye ku ci bëgg am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05. mbokki Sénégal mbokki àddina yéen ñi dëkke woon a jaaxle ci gis ku leen di ñaanal ci seeni aajo na seen xel dal ku yàlla baaxi ci wàllu genge nii di sëriñ Ahmadou Mbàkke boroom def gis di ku yàgg a taxawu ay nit ci mbaaxuk yàlla ci mbaaxuk yàlla sa aaju dina faj yàlla baaxee na ko mu yore ay jaara yu gaaw ci li nga bëgg ak ay ndombo ci wàllum bayre wala sax tul gisee ak moom rek sa aajo faju daw leen gaaw gisee ak moom samedi ba mardi ma ngeen ko fekk dakaar Patte mercredi ba vendredi mën ngeen koo fekk fii ci Touba Darou Khoudoss wala sax ngeen jokkoo ak moom ci 77 690 82 74 77 690 82 74 yittey Serigne Ahmadou Mbacke borom def kiis moo di tàggale leen ak seeni njàqare dalal seeni xel. yaa am ndigal yow la topp faw jàmbaar ji. yaa am ndigal en Serigne Saliou Thioune sunu xalifa. yaa am ndigal yow la ni topp faw jàmbaar ji. yaa am ndigal xalifa Serigne Bamba. yaa am ndigal li mu la nga jëfe ko dimbali nanu. yaa am ndigal sëriñ na taalibe yi yaa am ndigal te maase yes lu ci yéen a saraki yeeg sa mbokk yee ngi ci yow yaa am ndigal ak taalibe yi te réew mi ñëpp la naw yaa sëriñ Tuubaa li képp ku moy yaa am jëm seytaane mooy ki la jey yaa am ndigal jërëjëf la ñuy topp faw jàmm jàmbaar ji ya am ndigal en Serigne Saliou Thioune sunu xalifa yaa am ndigal yow la ni topp faw jàmbaar ji sëriñ Muntaxa mi xalifa sëriñ Bamba li mu la nga jëfe ko dimbali nanu yaa am ndigal Serigne Mountakha digal na taalibe yi yaa am ndigal te maase yes lu ci yéen yaa sa mbokk yee ngi ci yow yaa am ndigal ak taalibe yi te réew mi ñépp la naw yaa am ndigal ndigalu ke bugg moy yaa am jëm seytaane mooy ki la jey yaa am ndigal jërëjëf la ni topp faw jàmm